ko pare. ñu teg ñu répliqué chez eux. bu ñu répliqué foofu fii la répliqué ci émission bi. <laughs> wala ñu alors moi ce que je veux vraiment <laughs> hmm. tous les téléspectateurs. Hmm. ñi seetaan. bu ñu considérer que bon il parle avec xol avec non man damay waxtaan rek parce que je considère qu'on est dans un salon en train de discuter et de causer hmm. j'oublie les caméras j'oublie les micros j'oublie tout le reste et très franchement sénégalais ñun ñoom ñoo bokk ndeg bay vraiment il faut que les sénégalais amul joola amul mandinko amul pulaar amul olof ñun ñëpp ñoo bokk ndeg bay que les la là mhm. sachent ñun ñëpp ñoo bokk ndeg bay ku ci bëgg a falu mhm. ku ci bugg liggéey na liggéey ba saa yu mu waree falu mu falu mhm. amatuñu jot ñun amatuñu jot di lijjanti ay problème de xeex wala du xuloo d'abord les gens ont des difficultés pour manger des difficultés pour boire yàlla dogal parce que addina yëpp a métti léegi mhm. tout est dur partout gis ngeen Ukraine. vous avez vu ailleurs. Mm. c' est pareil donc nanu gën a lu nu gën a solidariser la solidarité moi je pense que la solidarité et tous les acteurs politiques là nanu déggoo ñu trouver une solution d' entente ku ci nekk def li mu war a def mais aussi que les gens respectent l' parce que État moo ñu yor. Mm-hmm. État moo ñu sàmm. nous avons des militaires, nous avons des gendarmes, nous avons des policiers dignes du nom ñii ñëpp ils dépendent d'un état te ma ci jaaxal képp ku jógee ci sànni xeer soo faloo. jaaxaluma sax ah parce que tout simplement non c'est pas que doo ko tal c'est tout à fait normal. Mhm. que nga muté parce que sinon tu ne peux pas gérer un état parce que même si tu damay dégg souvent ñuy wax ne Euh, nii la doon def euh, da doon sànni ay xeer dafa doon sànni mais no tu ne peux pas être chef d'état ba pare dellu ji ànd ak ñiy xeer wala soo lay jiin di dugg ci palais bi tu apprends même on te montre même comment manger comment te vêtir mhm. et doo doo doo doo doo dugg fu ne fooy dem gars yi ñoo lay gunge di ànd ak yow nga am ay garde corps nga nekk on homme d'état mhm. soo nekkee un homme d'état état nag dañ ko war a respecter mhm. parce que suñu demee ba respecter tuñu état ñun xamuñu fu ñu jëm ñun ñii on a investi notre argent ya y a des gens regarde comme un type comme Ngom ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. Mm. ils ont investi leur argent nous avons mis notre argent dans ce pays là. c'est vrai et comme des malades dem mm-hmm. jàngi euh, gis gars yi dem yow chacun bi nga nekkee gune sa yaay jël la di la jox meew di la solal short ngay dem di jàngi nga dem ba am ay diplôme regarde au Sénégal combien de diplômés combien des hommes intelligents. combien de directeur je ne parle pas des directeurs qui ne prennent de téléphone je parle des directeurs yoo xam ne naka ngay xoolee Sénégal tey ñu ñun ñuy d'accord et qu'on mette vraiment en désordre on n'acceptera pas donc ñu ngi yaakaar ci yàlla yaakaar ci état bi nañu continuer di défendre les causes de l'état mhm. nañu con nañu continuer di défendre les causes des citoyens loolu loolu la ñu ñaan loolu la ñu laaj parce que kenn bëggul ñu dem ci kër jàmbur wala di dem ci kii pour pour pour faire un désordre donc l'État fait son travail mhm. par contre aussi que l'État essaye de gérer de savoir gérer mhm. de pouvoir gérer te xam naa ne aussi ñoom ñu ngi jëm mais je pense que ñun ñëpp ñoo bokk ndeg bay mhm. et que Dieu nous aide à nous entendre que Dieu nous aide à à à dépasser cet événement. Euh, Abdoulaye Wade il est resté des années des années à faire euh, le truc. Donc je <coughs> je que ça soit Sonko, que ça soit les autres, ils sont jeunes. Mhm. Ils ont encore le temps. Mm. Si ce n'est pas ce mandat, c'est un autre, c'est un autre, c'est un autre, c'est un autre. Ablaï Wade, c'est 20 ans, je crois, qu'il est... Hein? ans. Mhm. Il a fait ans d'opposition. Mhm. Euh, Adina, do Ça ne sert à rien d'aller jeter des bâtons et jeter des trucs. par contre génération bees bi on accélère la cadence là. waaw mais nag euh, je crois que la fête de la musique ne méritait pas quand même les casseroles <laughs> je voulais entendre des trompettes et des trucs <laughs> et je dis souvent aussi que les vendredis uh-huh. mais les gens ne prient pas kenn defatul asuru kenn defatul kii les zones les dimanches monsieur le préfet s'il vous plaît <laughs> les dimanches huit heures ba quatorze heures na nit ñi marché Ils n'ont qu'à faire du sport. Les gens n'ont qu'à marcher. Ils font ce qu'ils veulent les dimanches. Nañuy bàyyi nit ñi liggéey. ñu bàyyi et voilà alors les salles les. Sonko les euh, comment dire les Abdou Mbaye les tout tous euh, et cetera et cetera. maa ngi leen di ñaan ngir yàlla rek nañu teey vraiment ñu liggéey et puis le Sénégal nous appartient. à nous tous incha allah incha allah et des cœurs pour notre président et directeur général. yéen ñi nekk ci YouTube bi gars yi mais mais ñëw ñu anecdote bi ak Philippe Senghor. da nga ma maye léegi. <laughs> anecdote bi rek moom la ñuy tàggatoo rek quoi. gars yi yëpp ñu ngi lay nuyu parce que ñëpp a ngi kontaan ci ah, ah, lumière ah, light. tey moom mën naa la raconter benn histoire rek. Mm. xam nga Philippe Senghor. xam nga dafa niroo woon naar soo ko gisee comme naar. métis mm-hmm. naar. je crois que Cheikh Ba est en train de m'écouter <laughs> Cheikh Hamidou Sall aussi est en train de m'écouter mm-hmm. benn samedi dañu dugg ci benn oto Cheikh Ba. Mm-hmm. benn Mercedes immatriculé Mauritanie. 450 SL décapotable ñun ñëpp ñu jëm tout droit war a dem Popenguine topp tali bi benn motaar topp leen gendarme gendarme bi mu ñëwee bloqué ñëpp kii ki ci kanam beneen gendarme nekk ci ginnaaw escorté oto yi xamuñu ñi ci nekk yaakaar ne ay naar la naaru ginaar naaru ganaar yóbbu leen poste parce que gendarmerie ba ñu egg rek gendarme bi toog ak kasketam gauloise la doon toog benn séeréer la sax gendarme je me rappelle très bien Sarr sant ñëw toog il a commencé par Cheikh Ba mu ne ko non prénom mu ne ko Cheikh Tidiane Ba mu ne fils de mu ne Mohamed Ba tatatata nangam nom de la mère tata tata nangam nangam Mariam nangam pam pam pam pam assieds-toi ici. <laughs> eh waay Samba. Cheikh Hamidou Sall ñëw. Philippe est malin toog taxaw ba au dernier moment Cheikh Hamidou fils de tata Sall le nom de la mère. nangam nangam nangam pan pan pan deux gifles. waaw ah, kii li muy dóoree la demal toog fële day li muy dóoraate parce pour ñoom naar ganaar la. Philippe ñëw Philippe saasaay la saasaay la woon nag et puis il est très comique ñëw mu ne ko le du père mu ne noo ma mère mu commencé di wax de la femme de Senghor. mu bind mu ne le nom du père mu ne ko Léopold Sédar. rek gendarme bi doon tapé <coughs> mu ne Senghor ndeysaan <coughs> mon adjudant <coughs> waa ji ñëw mu ne ko ndeysaan Philippe màgg na ndeysaan Philippe Cheikh Amir Cheikh Amir mu ne mu ne mu ne mon adjudant mais lui il m'a giflé là mu ne ko tu peux te venger hein. <laughs> vengeance am na fépp. <laughs> léegi Philippe la ñu tal ñu escorté leen ba ñu yóbbu leen Philippe foofu tiré ak seen mbokk ben voilà donc euh, on a fini la soirée mi ngi bëgg a dugg mi ngi woo téléphone mais mais père. am amul jiwuñu téléphone Gaston Gaston nekkoon na dem fee. <laughs> Gaston du ma wax moom na dem wax ak Bekay Mbaye. son ami waaw son ami Bekay ñu ngi nuyu. père Gaston maa ngi lay nuyu ñu Alaaji Man ah nee na il a la musique au Sénégal euh, euh, ñëpp ñëpp ñëpp euh, ñi ngi ñi ngi kontaan Ketchup sa xarit na lu tax du mu la fi fekk Ketchup. ah man de Ketchup xaw man laa ko xam. <laughs> mais am na Ketchup bu nekk mbër nag. Ah, mooy sa xarit <laughs> incha allah gars yi gis naa tellement ay mbër fi mu nekk nii dama gis ay mbër ba ba fi mu nekk nii. non mais père nag j'ai euh, vu tous les lutteurs nag tous les lutteurs nag tous les lutteurs du Sénégal samay samay samay samay samay copains waaw non waaw samay doom lañ ñoom ñëpp gars yi nee nañ il faut nga ñëwaat ci lamb ji mm-hmm. parce que vraiment. la mbër yëpp ils xam naa ah, euh, day dundalaat équipe bi yëpp sax. ah euh, nee na gars yi nañ nga ñëwaat vraiment ci lamb ji gis nga kër yëpp pour yow la. kër yi ak doole je vous aime tous <laughs> ayca merci beaucoup euh, euh, euh, gars yi gis ngeen monsieur El Hadj Ndiaye la ñu dalaloon tey ci 19 ans de la 2STV. mais ñaan loo dara Macky Sall de. loo bëgg ma ñaan ko waxuloo ko ministre yu dul kiiwu téléphone na leen dàq. ah xam nga dama ko waxoon ci encore plus bi. monsieur le président dama jógee ci feebar dama monsieur le président monsieur le tous les ministres qui ne prennent pas le téléphone monsieur le président les DG qui ne répondent pas qui ne font pas leur travail li ñu kaas yëpp ci encore plus bi. waaw père xam nga ramadan bi tu as da ngay dafay